fastabiqu rawante leen alxayraat njëkkalante leen lu baax saa bu yàlla wax lu baax rek day wax daw leen wa fi zalika falyatanaafasil mutanaafisuun jàng ngeen ko waaye bu dee mbirum aduna mun a jëru daw famshu fi manaakibiha aduna dara jëru fee daw booy wuti alal famshu fi manaakibiha wa kulu min risqihi waaye mbir aljanna fastabiqul xayraat daw leen gaaw balaa jeex allahu akbar doomu aadama yi nag mbirum aduna la ñuy dawal mbirum alaxira dañuy dox ndànk mbaa ñu tardé mbaa ñu tardé wallaay ndeysaan aynama takunu fu ngeen mën a nekk aynama takunu fu ngeen mën a deexee yati bikum allah yàlla dina leen indiwaat ngeen daje jamian yéen ñëpp su alaxira inna allaha yàlla ala kulli shay'in qadir lépp la man ah ka gaynde lekk ka dee ci teen ka dee ca géej ga ki dee ci ndox ka lakk ñëpp yati bikum allahu jamian ñëpp la yàlla indiwaat aynama takunu fu ngeen mën a deexee yati bikum allahu jamian moo tax foo mën a dee buñ la fa suulee it ñëppay dekkeendoo rek buñ la jëlee fii yóbbu la fële it dekki rek yàlla ne fu ngeen mën a nekk rek ma dekkal leen kon fu ñu suul sa wax fu ngeen suul yéen a xam malaaka mi dana xam fi ñu suul waa ji dina ko laaji su paree ñu denc fa bu dekk jotee ma jëli ko indi ayna ma takunu yaati bikum allahu jamia su ngeen suulee fii nag xam ne dañ fiy fay impôt bu leen neex ngeen toxal ko suuli feneen waaw bu dee France mbaa Italie mbaa Espagne nga xam ne fii ku fi suul da ngay fay impôt néew buy fay impôt fab leen indi Dakar ngeen suul ko gratuite waaw alam naj al arda kifaatan ahyaan wa amwaata mu doy sëkk waaw ah ñun de suñu dëkk kenn dafay lemp càlle bu la fu si la doo fay dara xaw ma nag fii waaye daal fuñ la suule rek xayru wa min xaysu xarajta foo mën a génn waxoon na ko léegi de fa walli wajhaka na nga jëmale sa kanam chatra al masjid al haram kon banka sa baram mu ñaar noonu la de wa innahu te lii la yàlla wax kat lal xaqu mooy dëgg min rabbika ci sa borom la la jóge wa ma allahu yàlla nekkut bi gaafilin di sàggane amma taamaloona li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yàlla sàggane subhanahu wa taala wa min haysu xarajta waxatu na ko de fa walli wajhaka jëmaleel sa kanam satara al masjid al haram ca wàlli kaaba ga mu ne dama ne wa haysu ma kuntum fu ngeen mën a nekk bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jëmal leen seen kanam satarahu ca weti kaaba ga kon ñett a ngi nii wa min haysu xarajta wa min haysu xarajta wa haysu ma kuntum wa min haysu xarajta bu njëkk bi mooy nekkoo ci biir kaaba gi ndax waxoon na ko léegi fa walli wajhak boo nekk ca kaaba ga bu sa bu sa kanam gi dalul ci xeer bi doo am julli maanaam da nga koy dàq makk wala doo am julli boo nekkee ci biir makka ci boppam ba tey fa xeer wa nekk boo nekkee madina wala yu demee dëkk yooyu fa weetu fa xeer wa nekk fa weetu fa xeer wa nekk moo tax ñun fii fa weetu fa xeer wa nekk ci lañ bokk waaw moo tax kër goo nekk bala ngaa toog na nga wut buusal teg ko fa ba mu wan la penku nga tàmbale julli soo ñëwoon fenn xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga jàpp fenn rek daan ni fii la allahu akbar julli ga baax bu waxtoo génnee ñu ne la du fii de fii la gii baax na waaye boo julliwaatee fii du baax fii nga jublu soo nekkoon ci digg bi julli ñaar nga salaamaaleykum fii du penku kat penku bi sa ndeyjoor la da ngay def nii rek ñaar yi baax ñaar yi baax boo selmaloon toog nag naan subhanallah benn waaye waaye fii nga julli bi ngay julli wala boog fii nga jublu bi ngay julli nga ne waaw mu ni fii di penku julli ga yàqu na comme waxtu yi génn ko nga jublu fam fam wax bu fekkee sa xel dëkkul fenn ñeenti tisbaar nga julli benn tisbaar ñaar ñett ñeent ba am penku nag nga ne boobaay penku waaw loolu mooy ijtihaad dañuy bañ nga julli te jubluwoo penku ndax day yàq julli fi penku bi fi fi kaaba fi woote fi kaaba gi féete ñun nag penku rek la ñuy wax waaye léeg-léeg jant bi génne fu dul penku lu tax li allah yakuna ngir mu bañ a nekk linnaasi ñeel yahud yi aleykum ci yéen xujjatun wenn lay illa allazina zalamu lu dul ñu tooñ minhum ca ñoom yahud ya fala taxshawhum bu leen leen ragal waxshaw nii ragal leen ma man yàlla wali utimma damaa bëgg a matal ni'mati samay xéewal aleykum ci yéen wala alakum ak it xay na tax te doon ngeen jub yàlla nañ jub kama arsalna kon benn attee nga noonu ci fiq ak atte bi doon wax léegi wàllu walbati aaya muy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna niñ yebalee fiikum ci yéen rasulan yonent minkum ci yéen loolu tam dama bëgg ngeen sant ma ci ak ngeen jub moo tax ma yónnee leen ko yonent bi yatlu aleykum mu leen di jàngal ayatina suñu aay yi wa yuzakkikum mu di leen tazkiya waxoon naa ko léegi wa yuallimukumul kitaaba mu di leen jàngal téere bi wal xikma mu di leen jàngal fiq wa yuallimukum mu di leen xamal maa lam takunu taalamuna lu ngeen xamutoon wallaay mu di leen xamal ci mbiri àdduna lu ngeen xamutoon sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ñu fi jóge muy xamle lu nit ñi xamutoon ba bisu tey bii am na yom xamle te xamaguñu ko waaw sallallahu alayhi wa sallam xool nga li mu wax ci tàndarma boo koy dogee lenn munta remplacer tàndarma ci dog lu mel ni tàndarma docteur yi seet nañ ko ba gis ne tàndarma rek lim man ci dog moom rek moo ko man moo tax bu doom juddoo encore ñu koy defal tàngaram liir buy door a juddu butit yi dafay takkaloo dara demagu ci balañ cee def soowu yaayam muy am ëllëg ay feebari biir da ngay yëy tàngarma ba mokk tafali gi yàgg nga defal ko liir bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soo maa ngi bëgg a ñëw wallaay ndeysaan ñaareel ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween ne ko juux jox ko ko mu macc soo mu jon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moom it def na tàndarma ja defoon jaar fa mu jaaroon tabarkàlla su ko defee xale bi tàmbalee namp mën naa am du am feebari biir yu métti ak ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarkàlla ndax dañoo sob sa doom juddu léegi nga wuti meewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci meewum bay biir bi attanu ko soow mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ni ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sobe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yi fu muy jóge yow tam boobu waree ba ngoon nga nga nga lekk juróom-ñaari tàngarma da nga koy toolal set ndaw ku ndaay dañ soo rool ci sunu suuf waaw set ngay nag ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si butit yi da ngaa xiifoon ba butit yi wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tey nga dégg si benn biir bu ne xurr ba tax mu ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng nga boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom wa yuallimukum ma lam takunu taalamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma ma bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxle woo ko mu ñëw waaye boo ko fàttee ba jaaxle boo ko woy xam waskuru lii sant leen ma wala takfurun bu leen ma weddi wallaay waskuru lii wala takfuru li jar a sant yàlla bëri na lool ah waskuru lii wala takfuru yaa ayyuha llaziina aamanu yéen ñi gëm benn na ngoog de wallaay tey day digle istaayinu bi sabri dimbandikoo leen muñ wasalaati ak julli li la jafe ci say jikko nga defar ko li la jafe ci mbirum adduna sa gaaw a mer gi sa naqari deret gi ah sa yëg sa bopp gi sa bëri tiitar gi soo bëggee mu dañ wastaino bi sabri wasalaati muñ moo ko mën a dindi ak naafila guddi salaatu fii di julli juróom naafila la kon naqaree deret ku wax nga mer da ngay muñ tey naafila guddi lee mu dañ ba dootoo mer ab jul du gaaw a mer loo wax rek nam fuus nga jaay da ngaa mer nu këj loolu day tas kër borom kër du mer day ree rek di muñ day san waaye mer rek inna allaha yàlla na ngeen xam ne maa saabirin mi ngi ànd ak muñkat yi yal na yàlla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawaleen man suratul baqara aya cent cinquante trois wala boog téeméer ak juróom fukk ak ñett bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk julli assalaamu aleykum wa rahmatullah yàlla na yàlla nangul ñu suñu koor te nangul leen seen koor ñu ngi woon ci suratu albaqara ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee ya ayuha alladina amanu istainu bilsabri walsala inna allaha maa alsabirin ee yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen dimbandikoo muñ ak julli te ngeen xam ne yàlla maa sabirin mi nga ànd ak muñkat yi foofu la ñu tolloon démb wala boog bër ci démb war a door a tey ci aayab téeméer ak juróom fukk ak ñeent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal axyaaun walakin la tashcuruun loolu ñu borom dafa am lu muy tere fii ñi gëm yàlla mooy doomu aadama su génnee àdduna ci li ko neex bokkut ak su génnee àdduna ci li neex yàlla moo tax doomu aadama war a sàmm ab dundam ba bu dee dee mu dee ci li neex yàlla moo tax nit di wax inna salaati wa nusuki wa maxyaaya waaye ne wa mamaatiya dee ci li neex yàlla ki dee ci li neex yàlla nag la yàlla wax ne déewul wala taqulu bu leen waxati liman ci waajoo xam ne yuqtalu des koo rey fi sabilillahi coon yàlla amwaatun ñu dee dégg nga mu ne ku ñu rey ba noppi ne bu leen wax ne dee na ku ñu rey yuqatalu ba noppi ne bu leen wax ne dee na kon ki ñu rey joon yàlla pour yàlla déewut waaye képp koo xam ne da ngaa dee ci lu dul yoonu yàlla kooka daa dee kooka dafa dee moo tax ñooñu nga xam dañ leen rey ci yoonu yàlla subhanahu wa taala deesu leen sang deesu leen sang duñ leen sang duñ leen sang dañu suul noonu rek aleykum salaam yonente bi nee na bu yomal xiyaamatee seen góom yooyu ñu leen gaañoon ba muy génn deret misk lay doon misk lay doon moo tax nee na ba ñu reyee ba ñu reyee jaafar ba ñu ko laajee suñu borom ne ko loo gën a bëgg mu ne damaa bëgg ñu delloowaat sama roo gi ca sama yàpp wa ndax ñu reyaat ma mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ni mu amee solo mu ne kon bu leen wax ni amwaat bal na ngeen wax ni ahyaa ñooñoo ngi dund ba léegi walakin waaye yéen nag dund googee laa tashuruna yéen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi dina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg dina coow lu bari ndax léegi-léegi da nga jàpp ne kun suul rek fuuti nga ba demee ci téere yi wax ci wàllu ziyaare ay xubur werante day bari lool yow miy gëstukat nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël benn version rek daal di wéy ndax yàlla fii def ne bal axyaaun walakin la tashurun gaa yaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg ma ne kon loolu jar na teey bu baax te di ko gëstu ba xam version yi ci gaa yi di wax yëpp ndax jenn waay dee na te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne maa gis saar ya di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak alimran loolu addis bu wér la te waa ji dee na ba ñu sóol ko jigéen ji mën a gis saar bi yi di jóge ci dënn gi di yéeg ci asamaan ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba gëj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yu demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ngeen waxee allahumma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmee la kon yooyu jara bàyyi xel la te di ci teey waaye defe ne kun suul rek salaamaaleykum léegi ay suufoo fa def ci ay yax yu funuk loolu ëpp nay wax ñu ci bàyyi xel bu baax walakin la tashurun waaye yéen du ngeen yëg dund ko wala nabluwannakum daañu leen nattu wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shay'in ci tuuti min al xawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbiri yeneen dee wala ñàkk min al xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juu léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am décor bi am nawet ñàkk am ak yu demee ni ki yooyu wa naqsin min al amwaal ak alal jooñeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarkàlla ngeen retraité wutub oto muy pan rek léeg-léeg ma nettoo leen ko ma ngoog wa naqsin min al amwal wal anfusi ak ci bakkan it nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samaraat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yu meññ wala tool yu meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirina bégalal ñi muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñu muñ su ma leen nattoo ragal ñu muñ su ma wàññee seenu tuut ñu muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñu muñ su ma leen nattoo ci meññit ñu muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin dégalal muñkat yi muñkat yan allazina muñkat yi nga xam ne isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba wala tekkiwut baat boobu musibatun musiba wala tekkiwu ko musiba mooy loola dal rek loola dal nag léeg-léeg day neex léeg-léeg day naqari waaye arab moom musiba la koy wax wala nag saa bu ñuy musiba mooy neexut waaw di musiba da koo dal te musiba baat bi mooy dal na la rek asaabatum musiba bu leen musiba dalee qaalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoom loolu la ñuy wax wala nag day waaru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fekk ne boo koy wax da ngaa war a wax ci wàllu gëm ne inna ñun lillahi yàllaa ñu moom wa inna te ñun raajiuna ilayhi ci yàlla dañuy dellu moo tax muy jël par kenn ku deele lii ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nee nañu Omar ibnu Xataab moom lu ko mas a dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett tax na lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni yi ñu wees lu ko dal te dalul ci diineem mu ne garaaw lépp lu ko dal te dalul ci diineem mu ne ah garaawul su fekkee ne dalut ko mu mel lu weesu la meloon bu njëkk mu ne alhamdulillah bu fekkee ne feebar la mu xam ne yàlla da ko cay fay mu ne alhamdulillah ulaayika alayhim salawaatu min rabbihim la yàlla tëjee ay ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it nee na bu doomi jaamu yàlla faatoo yàlla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jaam bi malaaka yi ne ko waawaaw mu ne jël ngeen meññi ko xolam malaaka yi ne waawaaw mu ne waaw baayam lu mu wax ñu naa sant na la de ndax yaa ko mayoon jël ko nee na it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xam na ne fii doom di ñëw fi lay ñëw yàlla ne malaaka yi kon nag dem leen aljanna ngeen tabaxal ko fa ab néeg ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde néeg booba baytul hamdi hadis boobu imam ahmad nettali na ko ak Tirmisi ba tax kon ku deele da ngay bañ a yuuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jooy nag moom dagan na sa doom dee mën ngaa jooy maa sa mbokk koo deele rek mën ngaa jooy waaye yooxu nag moom dëgganut wuy sama ndey dëgganut fan lan jëm dëgganut ñàkk nañ dëgganut déedéet mën ngaa jooy rek fomp say rongañ parce que am na ko ko ko ñàkk jooy ko yonent bi ba Ibrahima faatoo doomam jooju dafa jooy saa wee ne ko ah yow da ngay jooy mooy leen waaw yërmande la bu yàlla def ci xol waaye li bët yi jooy day taxul lamiñ yi di wax lu naqari borom al aynu tadmaau wal qalbu yaxzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yàlla nee na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen na tooñ ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal min rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduna ñoo jub aluñ ci yàlla boole moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla yàlla nag moo yofalal sama musiba mii waaye yonent bi daal di koy denc mu ne ah man de yàlla woyofalal na ma sama musiba waaw bi ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yaf na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon day xam naa ne jii day c'est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi indiwaat beneen àtte kon tey muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañu nekk makka dañoo jëkkërle kaaba gaa nga nekk sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nele seen diggante xaw a sore am benn descente ba fa nekk suñu yaay wala suñu maam hajara ba doom ja jaaxle ndox te ñaari xeer yooyu lañu yëg bi séentu ko am ndox bi bi muy yéeg fii day yaakaar ndox ba muy yéeg fee muy tiit doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ko aji màkka ku nekk yàlla na la def ko dundale ko sunna soosee waaye nag yahud dañu ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yahud lañu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doj yi moomuñu jaam yi man maa moom doj yi maa moom jaam yi kon nag sañ ngeen koo def moo tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw safa ak marwa jóge fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jóge ci marwa mu ci safa mu juróom-ñaari yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy charte ya yooyu yëpp am na ca daw safa ak marwa loolu la yàlla di indi ci beneen atte fiq ci suratul baqara yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar waaw buñ njëkkee tudd alaaj ji yàlla nee na inna safa naka doj ba ñuy wax safa wal marwata ak doj ba ñuy wax marwa min sha'airillahi mi ngi bokk ci barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ne ci lay santaan ñu ko fay jaam fa man xajja képp koo xam ne ziyaar nga albayta kaaba ga muy aj mag awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkaar ci kooku ay yappaw wafa mu baagante bihimaa ci ñoom ñaar ay yappaw wafa mu baagante bihimaa ci ñoom ñaar dem yéeg ca bële wàcc yéeg ca bële wàccaat yéeg ca bële boo nappee nga wàññi sa kawar bu fekkee da ngay umra wa man tatawwaa ku coobarew nag ku coobarewu xayran def lu baax fa inna allaha na xam ne yàlla shaakirun sant la alim ku xam la maanaam boo defee la yàlla farataal ci yow foofee ba noppi nag yokk ca leneen loo xam ne kenn farataal ko ci yow yàlla shaakir la yàlla alim la li nga def kontaan na ci dina la gërëm te it xam na ko subhanahu wa taala loo waral ñu leeralal sahaaba yi ne leen sañ ngeen ko wër sañ ngeen caa baagante yéeg ca doj wala yéeg ca wér yàlla nee na illa allazina ñi nga xam ne nag yaktumuuna dañuy nëbb maa anzalnaa lii ñu wàcce min al bayinaati ci lay yu leer ñu di ko nëbb nit ñi wal huda li ñu wàcce ci njub ñu di ko nëbb nit ñi min baadi ma bayyannaahu ginnaaw bañ ko leeralee linnaasi ci nit ñi fil kitaabi ci téere ulaika mboolem ñii di nëbb xam-xam boobu yalaanahumullahu yàlla rëbb na leen ñépp ñi nëbb xam-xam boobu yàlla rëbb na leen moo tax yonent bi di wax ne alayhi salaatu wasalaam ku am xam-xam boo ko nëbbee ba àllaaxira yàlla day wut laab ñuy laab fas yi mu nekk weñ gu tàng ca sawara ñu laab la ko yow mii nëbb xam-xam yow mii nëbb xam-xam waaw man ataahu llahu ilman fa katamahu aljamahu llahu bi lijamin min an naar wala bi lijamin min naar moo tax xam-xam kenn du ko nëbb léeg-léeg nga wax ko foo xam ne fii kenn soxlawu ko fa waaye boo ko nëbbee du baax léegi la nga àgg foofu da ngay xam ne lii boo ko waxee du neex gaa yi waaye foog nga wax ko parce que xam-xam kenn du ko nëbb parce que boo ko nëbbee ba demee bul yàlla jàppee tabaaraka wa taala